sëriñ Bari Muntaxa wala soxna si nga xam ni daanaka mooy sëriñ Bali Muntaxa di ko sell di doon jàmbaar ci li nga xam ne mooy yoonu murit gars yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yal na jëm kanam def leen seeni abonnement waaye du tee dëkk bu sell bee la nga xam ni moo fa am ci vidéo benn par benn bu ngeen ni doo topp dara du leen ci ràcc yi dañuy dikk ci bernde yi waaye balaa ñu cay sori gaa yi démb ci yoonu Touba yi ngeen gis image yi mu nekk image yoo xam ne yu am solo la maanaam autoroute yi nga xam ni wala APS bi nga xam ne moo dugg Touba ci gox yu fasantikoo yi gaa yi dëkk bu sell ba mbooloo ma fa wàcc yéeme ne lool ngeen gis ko noonu ci gox yu fasantikoo yi nga xam ni moo wërngalu lii di dëkk bu sell ba di Touba di njaareem ak di fi nga xam ni moo nekk nga ngaabu loole nag bu mu bett kenn ndax ku sell ki di xaadimu rasuul liggéey bi nga xam ni moom la liggéeyoon jàpp naa ni meññeef yami meññeef day door a commencé ñi ngi fii kër sëñ bi fi la nga xam ni daanaka bernde yooye bari na fa lool kaar allah bernde yi yéen ñi nga xam ni ay njaayeen leen nekk ci dëkk bu sell ba fu ngeen mën di ne baye bu ngeen defum diiraan dem seeti soxna su sell sii tey vidéo bi moom la concerné waaye yeneen vidéo yi di ñëw dana laal fépp waaye nag prêté na sunu attention jëf ji nga xam ni jëf na ko ci màggal gi nga xam ni màggalu Seexul Xadim la tey it màggal gi gars yi dafa mel ni solo si ñu bari xàmmewuñ ko solo si dëgg-dëgg mooy bernde bernde bu ngeen ko déggee mooy jël ay ñam jox ko nit ñi ñu daal di mën a barkeelu seen xol féex seen xol sedd loolee daanaka seexul xadim bokkoon na ci ponk yi bu fekkente ni màggal gi am nay ponk ponk bi ci gën a dëgër mooy ñam yi gaa yi lekk ba suur sama copain sama xarit di kanet moom it daanaka fi mu toll nii jalbalaa ñoo na fa bu baax a baax ak li nga xam ni mooy butéeli ndox yi pom lépp fii ci àdduna walla fépp ci senegal foofe lépp nga Tuubaa muy wane ni doon naa leen ko wax koom-koom gi am na solo ndax ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jaay ak lekk wala fir wi wala leneen loo xam ne en gros lañ koy jaay gis nañ seen bopp bu baax a baax ci recette màggal kon màggal gi daanaka koom-koomu Sénégal bu ma juumul moom lay yëkkati ba ca kaw